télévision Futur Média mbokk yi ànd ak ñun ci xibaar yi marax yi daleen ak jàmm gannaaw bañ leen nuyoo ñu tàmbalee xibaar yi ak maître Sidiki Kaba tey jii la teewee assemblée générale bu union bi ëmb magistrat yu Sénégal doon amal ca Mbour ah, foofa nag wax na fa yéeneem ngir justice bi mën a moom boppam waaye fekk fexewul nag ci kàddu yooyu ba yey ci ñi nga xam ni ñooy magistrat yi ah, ñoo ñuy màgget Diop yi ñoom li ñu bëgg mooy président de la république Macky Sall génn ci jiite. Euh, magistrature de la république euh, ñu teewlu seen ay kàddu Mame biram Diouf moo ko tataan ak Mar Dieng gën a dooleel justice fii ci biir Sénégal UMS nag mu ngi ciy liggéey ba tey di laaj kon njiit réew mi ak ministère de la justice ñu génnee seen loxo euh, ci conseil supérieur de la magistrature. justice dafa am pàcc bu rëy bu muy doxal ci réew mi justice mooy doxal yoon te yoon pour nga doxal ko justice dafa war a gën a moom boppam te loolu mooy suñu soxal bu njëkk. te ñu ngi ñaax suñu collègues yi fu ñu mënti toll que justice bi taxawaay taxawaayu ndey ji seer am ab justice koo xam ni kenn du ko natable te na muy doxee loolu it doon luy teel ministre de la justice maître Sidiki Kaba moom ma nga xam sa jotoon na xamle ni fi mu toll nag constitution bu Sénégal maywul benn yoon njiit réew mi di génne loxoom ci conseil supérieur de la magistrature. indépendance dafa am solo parce que dafa nekk ci suñu constitution donc euh, magistrat yi euh, war nañ def seen liggéey te ñu bañ a am benn pression euh, pression de l'exécutif. mais pression aussi euh, li nga xam ne mooy oligarchie financière ou maraboutique euh, pression bi nga xam ne mooy xaalis tamit xaalis bi nga xam ne dina tax euh, doo def sa liggéey loolu yëpp alors nañ war nañ bàyyi magistrat yi ñu dem seen liggéey. Maguette Diop njiitu UMS jàpp ne nag am na ay kàddu yoo xam ne ni tegg na wul ñu koy faral di jël ñaare di koy teg ci kaw magistrat yi mu xam ne rek ni loolu dina dakk ndax ñoom lépp loo xam ni seen taxawaay la ci dinañ ko def. nga ñaari pàcc. am na ñoo xam ne li ñuy wax ci justice bi comprendre ñu xamuñu justice ni muy demee ñooñu mën nañ leen a jégal tey dañ cee war a gën a di wax di leeral yéen ñi nga xam ne yéenay tas ko xibaar yi ngeen jàpp ñu pour ñu xam waaye nag am na ci ñoo xam ne seen i mébéb mooy que ne justice bi ñu nasaxal te loolu ñun magistrat yi duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg dinañ ci taxaw xar ci suñu tànk tubéy ba képp koo xam ne dañoo bëgg a toroxal mënuñu ko sax waaye boo ko jéemee du sotti. gën a dooleel justice jox ko dayoom fii ci biir Sénégal UMS ne nag ni mu ngi ciy liggéey naataango màgget Diop yi ne it bëgg nañu anam yi ñuy liggéeyee ñu gën leen cee bàyyi xel. Euh, ci ndaje moomu la ñuy des euh, ndax sax muy jëwriñ ji ñu dénk wàllu justice ak moom màgget Diop moom mu jiite magistrat yu Sénégal àdduna ñu ci mbiri Nafi ngoom Keïta mu mi am yéene yóbbu nguur gi nag ci jaay doole euh, ba foqar ci lañ ko dénkoon ñoom li ñu xamle mooy nañu bàyyi yoon def liggéeyam kenn ku nekk itam ci ñaar ñooñu joyanti na doxalinu présidente ba jiite woon OFNAC nag dina Ngom Keïta seen i kàddu Mame Birame Diouf moo ko tataan ak Mar Dieng ba tey de la Cour suprême du Sénégal n'est pas assujetti à la déclaration de patrimoine. président bu Cour suprême bu Sénégal moom kenn waru ko wax mu def déclaration de patrimoine ndax loole ministre yi ñoo ko war a def ak administrateur de crédit yi nga xam ne nii dañoo yor daanaka benn milliard boo xoolee ci budget 2016 bi Cour suprême euh, daanaka 800 millions euh, la ci am kon yeneen chiffres yi ñuy wax loolee taxawul. bu fekkee naka soxna soos dafa joteek euh, président cour suprême li may wax rek mooy képp ko xam dafa jàpp dañ kaa tooñ mën na dem ci yoon te cour suprême ñëpp la fi nekkal mu wax kon luy dëgg. qui sont les lois du Sénégal. bu fekkee am na sikki sàkk dafa am ñu koy interpréter wax na nii la mën a doxee mais du nit rek mooy taxaw ci xalaatu boppam ci xelu boppam ne lii moo war a nekk il faut que ñu delloo si xel yi il faut que ñu joxante cër parce que ñun ñëpp ku ci nekk pàcc bi nga nekk. dafa liggéey booy def te kenn warul attaquer se morom ñu ñëpp dañu war a joxante cër dañu war a ormalante loolu vraiment lu ñu soxal la te dañ ci taxaw firndeel rek bu gàtt bu ma ciy wax mooy recours am na comme ni ngeen ko waxee madame Nafi Ngom Keïta def na recours c'est bien la justice est là et la justice dina def liggéeyam donc wax ji jarul guddal ca Mariste la jëm foofa moom ca immeuble ba ñu euh, jagleel gaynde yi euh, foofa ca HLM Mariste ñoom li ñuy jooy ak euh, naqarlu mooy camion yi nga xam ni dafa gaare ak garage yu yi tax ba ñàkk kaaraange am foofe loolu nag la ñuy sàkku ndimbal te itam fekk na mu naqari leen lool ñii di mécanicien itam tontu nañu ci wàll boobu dañ ci ànd ak Alassane Ba ak Modou Diop. gros porteurs yi waral seeni maire Bamba Ndiaye ak i dëkkandoom gis ne camion yi defuñu lu dul encombré leen teguñu ko ci yoon kenn mayu leen autorisation xanaa jaay doole rek bu ñu ñëwee guddi la ñuy liggéey ay deux heures trois heures du matin bu ñu agsee kenn dootu nelaw ndax moteur yi ndax coow yi fi am. mënatuñoo nelaw di indi ay épave ba ci suñu suufu immeuble yi di ko fi dépiécer di def pièce détachée fii di jaar ci kaw trottoir yi di ko détruire di arrière di bëma xaar euh, poteau lampe yi ndax bëgguñu lu leer. dañoo bëgg di liggéey te duñu fay local duñu fay tax duñu fay dara. kilifa yi nag jot nañ leen saisir ci li ni mel wante ba léegi amut benn réaction ci lu yàggu dara bu ñu sukkandikoo ci seen i kàddu am na benn ndaw bi fi jot a faatu. bërki démb dafa am benn xale mécanicien bu fi ñàkk bakkanam ndax dañ ko doon liggéeyloo te joxuñu ko benn sécurité moteur bi sax kalewuñ ko far moteur bi rës damu loos mu sedd noonu loolu di lu doy waar loo xam ne moom amee ba léegi gisuñ ci benn bu buñ ci def. boobu police du ñëw. woo nañ brigade d'intervention ñëwuñu dem nañ mairie dem nañ police dem nañ ba ci ministre Diène ba benn autorité bugg la ñëw fii. ay apprenti ak i chauffeur nag ñu fekk leen ci camion yi wante ndaw yi jàpp nañ ne ñoom li leen fi tax a gaare moo di dépannage kese wante bu ñu paree dinañu dem ci beneen wàll ji garage mécanique moo fa nekk wante ñoom andi nañu seen i tontu. ci ñoom li ñu wax on occupe occupation bi illégale la mais garage bi mooy fees de temps en temps. am ay oto yoo xamante ne dépannage bi c'est vite fait nga génnee ko ci biti dépanner ko parce que doo ko fa bàyyi doo jël une valeur de trente millions di ko bàyyi ci mbedd mi mais y a certain nag oto bu quant à gros porteurs yi ñun loolu gaare wuñ ko fi. amaguñ ci lu ñu leer ñu ngi koy leerlu yaakaar naa ne dina leer tey ndax mairie bi nekk fii suñu ginnaaw mairie Dalifort dinañ ñu abal ay jumtukaay maanaam sabo bu ñu sabotee camion yi yaakaar naa ne borom camion bi dana ñëw te lépp dana leer. ñii nga xamante ni ñoo dëkk ci immeuble HLM Maristes yi fas yéene dem ba jeex ngir jëlee fi camion yi ci espace bile lu aju ci jëleetu tànk yi ak taalibe yi ci mbedd mi xayma bi def nañ ko lu toll ci juróomi téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti taalibe daanaka jot nañ leen rëngu làq leen ci bërëb naka noonu itam lu toll ci téeméer ak ñeent ci ay soxna ñi di euh, sëriñ daara itam am na ndimbal loo xam ni bàyyeekoo na ci ministère bi ñu dénk wàllu femme ak xale ndimbal yooyu sax biñ ko xayma ci fukk maanaam Euh, ci fukki junni ak fukki junni ak juróom daanaka euh, ci la xayma boobu toll Fatima Ba moo ñu ko leeralal ak du Diop. ñu ngi tollu ci xayma euh, programme bi nga xamante ne moom la ñu jagleel jëlee xale yi ci mbedd yi ndakaaru jamono ji nag jàpp nañ ne lu ëpp juróomi téeméer ci ay xale jëlee nañ leen ci mbedd yi ndakaaru lu tollu ci téeméer ak ñeent fukki way jur itam naka noonu. tax na ci fukki sorti ak juróom-ñeent yooyu ñu génne. juróomi téeméeru xale ak fukk ak juróom-ñeent ci mbedd mi ñooñu nag am na ci ñoo xam ne seen yaay lañu àndal ñu toll ci ñaar téeméeri xale ak juróom-ñaar ci biir ñaar xale ak juróom-ñaar yooyu téeméer ak fukk ak juróom ay xale lu góor lañu juróom-ñett fukk ak ñaar ay xale yu jigéen lañu. ci te juróomi téeméer yooyu toujours ñépp ñi nga xam ne sénégalais lañu toll nañ ci téeméer. ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñi nga xam ne malien lañu toll nañ ci ñaar fukk ak juróom-benn ñi nga xam ne guinéen lañu toll nañ ci fukk ak juróom ñi nga xam ne ay yaay lañu toll nañ ci téeméer ak ñeent. fukki jàngalekat alxuraan ak juróom ak itam lu toll si ñaar fukki jaboot ak juróom benn daal di nañu xamle ne ñoom ñooy ay way juru xale yooyu ñu jëlee ci mbedd yi ba tax na nguur gi taxaw na temm ngir jàppale leen. li ñu def nag ci ndimbal. war na toll na ci juróom-ñaari million waaye du ñu leen bàyyi mukk te li war a taxaw taxawul ba mu wóor nañu sëriñ daara bi kat soxlaatul taalibeem di wëndaalu di dem ci tali bi di di nekk ci danger yi mais dana leen téye dana leen jàngal jàngal bi war. mu doon ab ndimbal boo xamante ne ñoom rafetlu nañ ko bu baax a baax. boo gisee nit ki bu dee di yelawaan rek amul fu mu jàpp parce que képp ki nga xam ne mu ngi si mu ngi fii si dëkk bi eh, kenn bëggul yelawaan jox nañu ceeb jox nañu saabu jox nañu ay waa leneen ak leneen. ko ñu ngi rafetlu euh, dimbal bu ñuy jox ñu ngi koy sant bu baax a baax. ndimbal bi ñu jagleel jàngalekatu alxuraan yi ak juru xale yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci mbedd yi dinañ ko def weer wu yàlla sàkk campagne bi nag dañu koy door ndax benn xale bëggatuñ koo gis ci mbedd yi muy yelwaan ak taxawaalu. Fatima Ba jërëjëf ci lañu des ba tey ndax kii di Serigne Alpha mairo Sy di doom ci Mame Abdou Aziz baax moom tam loolu lay sàkku ci guvernement bi nañu jàppale bu baax Serigne daara yi loolu nag mi ngi koo xamle ci consultation euh, bu ñu doon amal ci Tivaouane lu toll ci juróomi téeméeri taalibe euh, faj nañu leen jox leen seen ay garab Cheikh Anta Diop ak Sey Latir lu toll ci juróom fukki docteur ñenn seen xam-xam màcc lu jëm nag ci wàllu bëñ dëkkoon ci Tiwaawoon ci daara yi sëriñ maam Abdou Aziz Sy baax doon saytu wér-gu-yaramu taalibe yi nekk ci daara ji xale yi jóg rang ngir ñu mën leen nemmeeku Bintu Catherine Gassama nekk chirurgien dentiste jiite kuréel gi dikkoon ci tiwaawan tey ñëw nañu Tiwaawoon euh, ak association bi assistance développement éducation pour jàppale daara yi. nekk dañu ñëw dimbalanteeg sëriñ si sëriñ Alpha si moom ci ndigalu ay kilifaam la ñu ñëwee taxaw fii bu ñu ñëwee bëgg nañu gis lu ma juróomi téeméeri xale dañu commencé par xool seen gémmiñ xool seen yaram. tawat yu bëri nag gis nañu ko ci ndongo yi. bu ñu xoolee seen gémmiñ gis nañ ko ne dañu bañ dañu bari ay bëñ bëñ yu yàqu dañ leen koy fajal yi ñu dindi ko bëñ ñi nga ñi nga xamante ne dañu am feebar ci seen yaram dañ leen di faj bu ñu demee ñu mën a continuer. ñu choisir si daara yi nga xamante ne dañu organiser xale yi newuñu ci biti taxawaaluwuñu génnuñu dañuy jàng alxuraan parce que seeni waajur loolu la ñu sàkku ci ñoom donc suivi bi dafay am solo. Serigne Alpha Mayoro Sy nekk caatu Serigne Abdou Aziz Sy baax gis ne daara yi dañ leen a war a jàppale. donc bala ñu nekk di daara yi daara yi daara yi mais xale yi yalwaan 7 heures du matin ba minuit ñooñu nekkuñu ci daara ñooñu entreprise la. kilifa yi suñu bëggee réew mi jëm ca kanam bëgg yàlla defal ñu sutura. nañ fonk sëriñ daara yi jàppale leen te yàlla tax waxuma nag ñi yor ay entreprise di yalwaan loo xale yi ak di leen dugal ci yeneen. moom sax ñaax na nguur gi. jafe-jafe yi nga xamante ne yenn daara yi am nañu ko lañu ko teg teggi te xool nag daara yi nga xamante ne ñu ngi jàngalee dëgg te seeni ndong taxawaalu ñu taxawu leen. Ah, ñu wax euh, ci njàngum privé mi waaye nag euh, ci njàngum nasaraan mi la aju ndax ñaar fukki fan ak benn ngi ni ñu am lël euh, yu ñu doon amal ci naka la ñuy xoolaate nag njàng mi ci wàllu privé yi gi am na ci lu toll ci fukk ak juróom ci ay recommandation di ay dëxëñ yoo xam ni def nañ ko te lépp dañoo jàpp ni rek bu muccee ay ayib njàngum privé mi itam dana mën a mucc ayib dañ ci ànd ak Fatou bintu Konté ak Mohamed Dieng lu toll ci ñetti semaine li nga xam ne moom mooy ndaje gu rëy gu amoon ci wàllu enseignement privé amoon na ci dëkk yu bëri fii ci Sénégal mu di ay ndaje yoo xam ne dañoo bëggoon xam jafe-jafe yi nga xam ne bi le secteur jamono ji moom lay jànkonteel dañu xaw xool aussi ne secteur bi dafa am tuuti désordre loolu tam il faut ñu wax ko ku jóg ubbi sa école du ñu xam kan moo ubbi école du ñu xam fu mu ko ubbee du ñu xam fu mu jàngee du ñu xam ñan lay former et pourtant xale yi nga xam ne dañuy jël seen destinée parent yi di ko teg seen loxo xale yi c'est l'avenir de notre pays. ba tax ni ay recommandations yi am solo jot nañ ko fay def ngir li nga xam ne moom moo mën a jëmale kanam secteur enseignement privé bi ñu mun ko am fii ci Sénégal. li ñu bëgg nag mooy que loolu mën a continuer mën a wéy lu koy wéyal mooy ñu dimbali ñi ngànk secteur boobu. ci ay formation ñu gën a former seen i jàngalekat ñu gën a former seen i administrateur ñu gën a former seen i manager parce que formation mooy gage qualité ñu dimbali secteur privé surtout ci taxi yi parce que secteur buy évoluer surtout bu ci xaalis duggee ku ne rek da ciy bëgg a ñëw loolu nag mën na nekk lu baax mais mën na jur danger. wante ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo amaloon ndaje boobu nee nañu bu ñu sañoon lépp liñ fi waxtaanee buñ ko dugal ci tiroir yi nañ ko génnee ku ci ne mën cee jëfandiku. que conclusion yi ñuy dressé yi nga xam ne dañ ci liggéey ñetti semaine yend lu ñu fanaana lu ñu nopp lu ñu guddi nopp lu ñu bëccëg bu ñëwee mu nekk conclusion yoo xam ni emploi du temps jafe na metti na ndax charge la ku nekk koy sollicité mu jël temps bi mu soxla consacré ko ko jàng ko jàngaat ko xelli ko xelliwaat ko pour que ñu mën ci jëlee ay conclusion yoo xam ni li nga xam ne moom mën na ko dina ko mettre en pratique. bu nu xoolee li nga xam ne moom mooy chiffre d'affaires bi nga xam ne enseignement privé mi ngi koy indi fii ci Sénégal toll na ci fanweer ak benn milliard ci suñuy koppar ba tax ni. encadré ko dafa nekk loo xam ne lu am solo la. Fatou Bintou Konté jërëjëf dañuy wax ci wàllu politique dem ca bët gànnaar foofa ca Matam euh, Farba Ngom la ñu tànn muy mandateeru u APR foofa ca Matam loolu nag tax na ba ndawi Cogère yi di sàkku euh, ci képp koo xam ni ci APR nga bokk nga bootu ci Farba bu ko defee coowal politique li dàkk foofa euh, ca bët gànnaar Momo sàll moo ci yëkkati ay kàddu ñu déglu ko. Honorable député Farba Ngom mooy suñu mandataire. di mandataire boo xam ne dafa boot ñëpp boolee ñëpp ñëpp gis ci boppam ci parti bi lu ñu def lu dul di ko remercier. am na ñoo xam ne ñoo ngi mbubboo ci parti bi la ñu di di ŋaññi ay responsable di ŋaññi doxalin responsable yaakaar naa ne ku ŋaññi doxalin responsable ŋaññi nga politique président Macky Sall. ca bët gànnaar la ñu des foofa ca Gànjool kii di ay Aïssatou Cissé di conseillère euh, bu président de la République moom nag dem na fa dimbali ñi nga xam ne dañoo amee laago am ndal gu am solo goo xam ni defal na leen ko foofa u seeni Diop lañ ci àndal ak Habib Seck. fépp fu nit di yëngatu nga xam ne ne yow ak sa laago bi mën nga ko def danga koy war a dem defi moo gën nga ne da ngaa am laago kenn xajalu la yow yaay buux ñu nga euh, euh, dugg fu fi nga war a dugg parce que réew mi ñu ñoo ko bokk. ñu ñoo mën a war a euh, def suñu réew mi am émergence comme ni ko président de la république bëggee ndaw la mu ngi juddu après indépendance ñun ndaw lañu donc dañ ko war dañu war a àndandoo ak moom war mën a atteindre émergence bi te kenn warul des ginnaaw nga am laago nga ñàkk am laago segam ñoo xam ne seen xel matul ñooy commencé di liggéey Sénégal masa mag ñoo xam ne cër yi rek manqué parce que am na ñoo xam ne ñu bari tey seen xel matul ñu ngi liggéey. ñu ngi jàng di def jardinage ak yooyu donc wax dëgg yàlla loolu loolu rek laa bëgg sama mbokk yi ñu xam ko te def ko seen xol du waxu ay xëccoo wala yooyu non képp ku la ne dexal ci mbedd bi waxu la lu baax waxu la lu baax dalay bëgg di la romb di ne ndeysaan te ndeysaan dañ ko war a Euh, métier ngi nii nag kuy euh, dugg ci oto ñaare ci feu yi di nga ko gis muy ñuy fomp seeni parabrise ñaare sax mu neex la ak mun a xare la ñu defal la ko euh, luñ ca mën a for itam ñu jël léeg ñu dàq ci ñaar fukki dërëm mbaa sax léeg-léeg ñu neenal leen liggéey la bu ñuy faral di gis reportage ngi Maimouna Ndiaye moo ko ci def ànd ko ak Younous Diatta ci naaj bu tàng tàng fii ci Castor ci biir oto yi ñu seen fii benn waay boo xam ni ab butéelu ndox la yore ndox moo xam ni dafa xëpp li muy def nag mooy léeg-léeg mu koy capp-cappal ci pare-brise du oto yi léeg-léeg sax borom oto yi duñ ko gis wala sax buñ koy gis dafay yéex. gis nga jamono gis nga jamono du ñëpp bokk yam du noonu ah jamono xam luy neexal jamono mooy ñii di mer ñii loolu mooy neexal jamono mais yow mi ku jiite jamono mais yow laa yow yaay am ñi nga jiite ak ñuy ak ñuy kontaan. kii nii laaj ma ko gisoo gis nga jox na ma 100 francs gis nga kii bañ xoolal gis nga bañ lay demee. voilà. waa jii bu njëkkoon ab jaaykat la woon fi mu toll nii muy raxas parabrise liggéey boobu nee na mi ngi ciy am lu ëpp lam daan am. maa ngi dëkk fii Ndakaar man fii laa juddoo fii laa juddoo yoroo naa jaay jaay naa lu nekkee loo xalaat jaay naa. lu tax ma ma poussé dakk ziton bi gaaw moo gën dakk ziton xaalis moo gën waaw dakk xaalis gaaw moo gën lépp. maa <laughs> dawalkatu oto yi nan lañu gisee liggéey bi ku ci ne ak la ngay wax. li ñuy def kenn mun leen a fay dañuy yor wecc da jox leen waaye kenn mun leen a fay waaw parce que li ñuy def daa solo trop sa pare-brise lëndëm ñu leeral leer nañ kenn mun leen a fay. rien de grave. lan lay def pare-brise. des daf koy xoos quoi day xoos pare-brise bi. koy seetal vu que vitre yi des fois la plupart day day day tilim ak layu beetu donc bu ñu leen joxee cent francs loolu dara. fu mu ne laajuma ko lii. dafa ñëw rek def. yow doo laajte ndax ndax bëgg naa. parce que seen ndox bi du baax quoi. boo ndox bi kenn xamu ko. aussi dafa am pare-brise yoo xam dafa am ndox boo xam ne da koy yàq. xam nga day flot xam nga mooy loolu man souvent dañ ma koy def mais dama naa leen noo arrêté. mën nañ am beneen xëy budul boobu loolu dafa yomb c'est la ñenn ñi ne lii bëgg lu yomb la ña ca des ne déet dafa am lu mu bëgg lu mu ci mënti doon boroom kër gi nee na mi ngi ciy suturlu di sant yàlla. gannaaw gannaaw reportage boobu ci dossier la ñuy dal muy dossier bi ñu jagleel wàllu caada di culture bi yoon nag ñu jagleel ko dugg néegu góor mbaa lël euh, ci suñu mbokk séeréer yi rawatina ñi naan ndut euh, ñoom nag cosaan la ci ñoom dañ ci ànd ak Ibou juuf ak Demba Ndaw jànkonte lay jafe-jafe ak seen daamar bëri na ci woto yi ñi nga xamante ne lii lii di ndoxu taw bi mën na leen indi ay jafe-jafe ak i paan yu dul jeex li ñuy gën a sonal ci jamono nawet. ñu jégalu ci reportage yu Ibou Diouf mu mel ni du bi ñu euh, yittewoo la ci dossier ñu fàttali leen ni dañ ko jagleel euh, wàllu dugg néegu góor muy lël ñi ci suñu mbokk séeréer yi nag am na cosaan bu solo ci ñoom euh, nu ñu koy xewale itam wàllu cosaan ak aada bu am solo la ci ñoom bu fekkee jàppandina ak Ibou Diouf ak Demba ñu ànd teewlu ko. ñoo ngi fii ci Diohine nekk ci région bu Fatick ci dëkk bi ba léegi ñuy màggal li ñu duppee ndut ci séeréer wala néegu góor loolee bokk ci li fi maam yi bàyyi woon ñu koy wéyal ba léegi. bon loolu loolu fondement bi mooy ko li si bi la doon maanaam yar xale yi pour ñu mën a nekk ay mag yoo xam ne ay mag yu am doole la ay mag yu xam nu ñu mën a dundee ci biir njaboot bi ak ci biir adduna bi yëpp quoi. loolu moo tax ba du gaaw pour ñu bàyyi ko parce que njëriñ la. lii dafa bokk ci li nga xamante ne day tàggat xale bi waajal ko itam ci li nga xamante ne noonu la war a dundee ak askanam. ndut ndut euh, en quelque sorte mooy euh, fu ñu doon yare xele maanaam fi xale fi nit doon jógee ci xele dugg ci mag euh, bërëb la aussi boo xamante ne lépp lu nekkoon sa mbañ. dañ koy toj su dee xol bu xat la woon dañ koy toj su dee da doon bañ ay ñam ak yooyu dañ koy dindi su fekkente ne da ngaa yara di ko woon dañ koy dindi mais aussi c'était une manière ñu woon la ne bon là c'est le respect de l'aîné mag yi lu ñu wax loolu la. amoon na ay at ci ci gannaaw ni mu xaw a wàññeeku mais fu mu ne nii ñu ngi koy encore renouveler quoi waaw parce que euh, village bu nekk day jéem a organiser wu. pour maanaam def cosaan bu mel ni quoi. ñu dafa bokkoon ci lu ñu doon may yar aussi par rapport ak suñu morom par rapport ak suñu aîné mais par rapport aussi ak suñu alentour. ci pays séeréer rawatina fii ci Diohine askan wi dinañ fexe bay tàggat xale yi ci li nga xamante ne rek mooy biir néegu góor loolee askan wi dañ ko jox gëdd ba léegi. booy valeur valeur bu rëy la parce que comme nuñ ko defee nii ci góor yi ci jigéen yi aussi am na. bon initiato initiation boobu dañ koy def ci wàllu mariage bu dee ci jigéen yi pour aussi foofu ñu mën a initier le nouvel la nouvelle mariée ñu mën ko jàngal naka la mën a dunde ak euh, ñu muy fat fekkee. at bu nekk ñëpp ñu fi cosaanoo dinañ faral di tase ngir fàttaliku ci lenn li fi maam yi bàyyi woon muy néegu góor ñu gën ko xam njub ci séeréer ci li nga xamante ne noonu la war a dundee ak askanam. Ibou Diouf jërëjëf dañuy dem ci benn doomu Sénégal bu ñu ràññee ca Canada moom nag euh, ràññee nañ ko ba def ko docteur ci statistique euh, ca université bu Laval 1 euh, dañ ci ànd ak Aïssatou Paye fal ak Xaali Ndiaye ñoo ñu xamale ak moom. ñaar fukki at ak juróom dong la am Mamadou Youk nekk jolof jolof bu wér moom nag am raaya bu mag buñ ko jox bu tudd prix pour la présentation de recherche étudiante. sa université Laval ca Canada mu nekk nag mbegte ak bànneex gu rëy ci kaw parcours bu am solo bu ndaw bi lay am. commencé euh, euh, Pikine Est euh, sama collège. après dem Limamoulaye def fa sama série S1 foofu laa amee bac après ba ma paree ma réussir concours école nationale de la statistique ma dem foofu. am sama diplôme d'ingénieur major de ma promotion en 2014 donc si boobu walaa dem euh, pour def euh, master de l'université Laval euh, ma def une session ñu accepté ma doctorat. juróom ñaar fukk ak juróom ñett ñu nekk ci doctorat di jongante ngir benn raaya ca mujjantal ga nag ñu tànn si Mamadou Youk bi nga xamante ne xarañ lool si li mu doon def. présentation bi def ko en anglais devant des chercheurs avec un jury donc ci jury ba mu par rapport ak qualité travaux de recherche yi ak qualité ak clarté présentation bi ñu attribuer ma prix bi. Mamadou nag moom fasciné wul toog foofu ca Canada expérience bu bëri bi nga xamante ne am na ko dafa fasciné nag ñibbi ci Sénégal te jëriñ dëkkam. Sénégal moo ma jox lépp donc euh, fii laa jàngee ba 2014 donc bu ma demee fee euh, uti fa xam-xam jaadu na ma ñëwaat Sénégal liggéeyal sama réew parce que man loolu laa gëm. donc man dama prévoir su ma paree sama doctorat rek ñëw servir ci université yi. royukaayam nag du kenn ku dul professeur Mary Teuw Niane ci du ndaw bile jaar-jaaram ak tey gi professeur bi tey nekk loo xamante ne daf ko yàgg. impressionné. de par son intelligence euh, mën nga ko xoolee ci parcours am bi mu def actuellement euh, même problème yi am université yëpp donc euh, il est là il est toujours présent il ne fuit pas il prend ses responsabilités donc looloo tax ma jàpp ne moom mooy sama référence. mu fonk dëkkam loolu ba tax ne day woo ndaw yi nga xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi bitim réew ñu ñibbisi bu ñu jàngee ba pare. mën a ñëwaat dimbali seen réew liggéeyal seen réew parce que Sénégal soxla na ko. li ma doon ñaan mooy xale yëpp jóge ci tali bi dem jàngi uti xam-xam waaw mën a jëriñ seen réew. Mamadou Diop nag yàgg na am ndam. ci atum 2010 nekkoon na lauréat ca concours général ba mu nekkoon it vice champion du monde cadet ci scrable ci atum 2007 atum 2006 mu nekkoon champion du Sénégal ci scrable moom nag ku bëgg mbalax la Youssou Ndour nekk ki kay daaneel te bu làkkee anglais itam mu làkk ko ci anam yu leer naññ mbokk yi mu nekkoon xibaar yi marax ak télévision Futur Média fi la ñu yem ak yéen di leen jaajëfal ci teewlu bi ah, di leen jox daje incha allah ci beneen jotaay xibaar bu ci àllande ah, juróom-ñetti waxtu ci tubaab di ngeen ci ànd ak Leya Sukeyna Ndiaye jërë ngeen jëf mbokk